جزاك يا خلال yàlla fay la isaar xayral jasa wa muna isaar dari kaaw laaka saar jasaka ya xelal ibrahima mawlaaka isaar xayral jasa wa muna isaar dari kaaw laaka saar jasaka ya xelal cheikh basiru gàllañu la isaar xayral jasa wa muna isaar dari kaaw laaka saar jazaaka yaa xel إبراهيم مولاك إزار خير الجزاء منا إزار دارك أولاك سار بسيرم سيخ سرين سار يا ربي نام سارا بسيرم سين بجوب سرين بأفعالا salaamaaleykum mbokki julli di mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi di santaat Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul di ñaanal Cheikh Ahmad Mountakha sunu borom yàggal ko fi te wéral ko di ñaanal sunu Cheikh Jëmb Fall sunu borom

defee day jox suñu baay Ibrahima Moussa Mbuub mu joxul ay kàddoom noonu lañ koy ak ñëpp ba mu leer ci kanamu ñëpp incha allah rabbi jërë ngeen jëf. bismillaahi rahmaani rahiim jërëjëf sëñ Touba jërëjëf Xaadimu ah, sunu jotaay bi tey li ko waral ah, mooy ah, sunu bis bi nga xam ne at mu ne dañ koy def muy bisu cant ku nuy cant ñu ngi sant sëñ tuuba ci turu sëñ Bassirou Sarr ci njiitalu sëñ ab Khadre Dieye sëñ Abdou Khadre Sarr ñu koy woote ñu koy waxe Dieye Sarr ñun ñi nga xam nag ñoo woote mooy daayira jamaxantul xaq te woote bi ñëpp lañ woow dindi ci kenn muy jullit di mbokk di taalibe bis boobu nga xam ne dañ ko téye muy bisu fukki fan ak ñeent ci weeru mars bi ñépp woon na leen fii ci kër sëñ bi ci cant goo xam ne ci sunu xol lañ ko tibbee ci njiitu doomu sëñ Basirou Sarr yëpp jiital sëñ Saliou Sarr ngir cant goo xam ne dañ ko fas yéene def ci njekk def ci teey def ko ci barke ñuy ñaan taalibe yu fu mu nekk muy fii ci senegal ak ci diaspora bi loo man nga def ko ci loo man ci jëf ci wax ci taxawaay nga def ko pour bis bi mën a jaar fu mu jaar bis bi mën a wuyu boroomam boroomam mooy kan mooy Sëñ Bassirou Sarr mi mu nuy cal donc suñu egsee ci loolu ñi ngi wax jigéen ñëpp góor ñëpp xale yi mag ñi fu waay mën a jóge mu ñëw jàpp ci bis bi ndax bis bi bis boo xam ne dañ koo def muy sunu yitte te at bu nekk dañ koy def at fukki fan ak ñaar fukki weer ak ñaar la benn bis bi ñuy jël ku nekk war na ko def bokk sa taxawaay ku nekk war na ko def sa yitte donc ñi ngi ñaan bis boobu yàlla dimbale ñu ban egg ceeg jàmm dugg génn ceeg jàmm réussir ci nga xam ne moom la ñu bëggoon nekk jërëjëf donc ñu ngi leen di dégg leen di leen xaar te jox sama jëwrin Atou Diouf mu wax ci. jërë ngeen jëf di jiitu samay kàddu damay sof samay nuyoo ci nuyoo yi jiitu woon di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant Serigne Touba di wax jërëjëfe maam Cheikh Ibrahima Sarr di sant sunu jàmbaar ja Cheikh Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba mi nga xam ni moom moo waral bis bii nga xam ni moom la ñuy woote. moo wax ni pàkk bii cosaan la maam Cheikh Ibrahima Sarr fi nekkoon ak sunu maam ya maam Mor Fatim Diouf maam Mor Awa Maam Mor Jaara Jóob ñooñu fekk sëñ Touba sunu baay yi ne fi ak baay sëñ Saar ñooñu fekk sëñ Touba ñun ñu nekk fi ak sunu baay yeeg Cheikh Bass jaamu sëñ Touba Cheikh Bass jaamu sëñ Touba di jàmbaar joo xam ne fexe na ci yoonu murit ba jaamu sëñ Touba garaat ba mu takk ko. wan ñu ginnaaw kon ñu mottali kóllëre ànd ak njabootam gi kii di Cheikh Jili Saar ànd ak soxna maam say Saar ngir lan ngir màggal jëmm jooju nga xam ne kenn la ci yoonu kër sëñ Touba. ñii nga xam ne nag bokk na ne askanoo nañu ci sunu maam yii ma fi tudd danoo bëgg njaboot yi ku ci ne xam ne soññ nan la ndax dese pusa mu réer mag ñi soppuñu ko ku ci ne ñu ngi lay soññ foo mën a nekk boo ko déggee jottali ko ko déggul bis ba le 14 mars la di bisu Cheikh Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba sunu jàmbaar ja ñuy wax ne ko ñëpp teewee di soññ tamit njabootu maam Mor maam Mor Cuun waaw maam Mor Cuun Serigne Touba ko boole woon ak maam Cheikh Ibrahima Sarr kon seen njaboot bu bisu Cheikh Bass jaamu Serigne Touba ñëwee njabootu maam Mor Thioune kon ci njaboot ci bis bi la ñu bokk ñu ciy soññu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi ñu amee ndigalu Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ñu jaar ko seen Sidi Sarr mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh ma Sarr bi ñu jógee foofu ñu am njabootu ki nga xam ne moom moo jiite kër Serigne Bassirou Sarr muy Serigne Saliou Sarr ginnaaw bi Serigne Jili amee ndigalam ñuy wooteel sant sëñ Bassirou saa sant la gi ñu koy defale sëñ Touba ndax kat ginnaaw bi sëñ Touba doonee kenn jaamu sëñ Touba noonu la doonee kenn tamit ci yoonu murit kon ñu di ko santale sëriñ Touba di ko woote fukki fan ak ñeent dajeeg bisub gaawu ci weeru mars ñu ciy woo jullit yëpp nag fii ci Thiès nag kër gi moo fi njëkk ci yoonu murit ñu ñuy woote bunt bi sëñ Saliou Touré mi nga xam ne ak njabootam ñoo nekk cees kër gi tamit am na mu demee waa kër Ahmadou Baro Ndiéguène ci wëllër Cheikh ma Sarr ñoom ñu di leen woom di woo ay dara ak njabootam gépp di woo tamit diiwaan yi nga xam ne ñoo fi liggéeyal Sëñ waa ci yoonu murit te nekk ci dëkk bi maj mooy moo nóoree ni sëñ Xaadim nekk ca bopp ba sëñ Moustapha Fall nekkal Cheikh Modou Kra sëñ Modou Ngom di sunu nijaay di sunu lépp moom it ñu ngi koy woo ci bis bi di woo képp kuy wax ashadu an laa ilaaha illallaah wa ashadu anna muhammadan rasulullah bis bi nag santug ñëpp la jotug ñëpp la xéewalug ñëpp la ñi ngi ciy woo ñëpp ñi ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo sëñ Tàkku Mbàkke mi nga xam ni moo fi nekk sëñ Tuubaa di suñu baay di suñu nijaay nekk su suñu boo jiite bis bi te lépp nekk ci li nga xam ni ci loxoom la nekk di woo sëñ Seexuna Mbàkke ruy diis moom duñ ko ci woo ci jëruñu bis bi dafa am euh, jëmm yoo xam ni dañuy tudd seen tur waaye moom bis bi bisamam di woo tamit képp ku ko sopp te nekk Ndakaaru soxna maam say Sarr nag mi ngi yóbbante ci jigéeni maam jaara yi nga xam ne ñi ngi Cees sëñ Murid jiite leen ginnaaw bu ñu jógee xaan ñi ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn ñi ngi sunu yaay jeefaal it mi ngi woote képp kum bokk Cheikh Ibra te nekk ci dëkk bi ñi ngi woo tamit euh, waa Kër Seex ñi ngi gàttal foofu suñuy kàddu ngir ñëpp daal ñu ngi leen di wax salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñoo ngi woote bisub Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba. fii ci Touba Thiès la 14 mars woote bi nag dañ koy jëmale ci ñi ñuy dëkkal fii diggante Njóobeen Njuufeen Cuuneen di ak ñangeen euh, ndax ñooñu ñooy ñi nga xam ñoom lañ bokkal sëriñ bi fii ci kër gi ñoo ngi woote nag ci Touba Thiès euh, buñ nee Thiès waaye tubaa Thiès a tex ñuy wax kër sëñ Bassirou Sarr jaamu sëñ Touba le 14 mars waaye nag dañoo yor kàddu sëñ Moustapha Ndoye mii nga xam ne mooy leeru soxna si la soxna si Jee Fall mu Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha mu maam Cheikh Rafal koku nak bu wootee turu seigne Cheikh jëm lañ fay tek mi Cheikh Rafal mo ci jitu waye bokku dañ ci lim seigne Assane Fall mu seigne Cheikh Fall Baye gor di lim seigne Cheikh Ngunda Fall seigne bi nga koy woo di wo kep ko xamni yaangi wax Baye Fall nga ndax yalla def na alxamis ja guddik mam Cheikh Rafal lañ fi def fi ci kër gi kon loolu jarna baye xel ñogi sant ñep di gërem ñep di ñaan seigne bi yalla nga fi yàgg te wér. alaykum wa rahmatullahi taala wa Yen yéen mbokk yi yéen bokku talibey ñi jëlaat kaddu gi ci turu daayira jamaatul xaq bi nga xam ni ñoom ñoo yor organisation bi nga xam ne moo jëm ci cant gi nu dëngbal le 14 mars di sant Cheikh Ahmadou Bamba di ko sant euh, ci ndigalu sunu sëriñ sëñ Jili Sarr mi nga xam sant gi kat len loolu moo ko tëral sëñ Basir Sa jaamu sëriñ tubaa la ñuy santale sangam ba ca màggal ga da ngay dégg ñu naan la. cheikh ahmadou bamba nee na ni ñoom si lan lan magal gi pour santale ko euh, suñu borom wa bi na dañu fa magal gi santale ko suñu seigne bassa jaamu sëriñ touba sangam ba khadim rasul ñi yo bépp daayira bo xamni mi ngi Thiès ak li wër Thiès ak mën ta nek ci aduna bi ñi ngi leen ñaan ngeen teel ñew japp ci bis bi ko koog ñun diwoo mbokk julit ndax té kat bu ne seigne bassa jaamu touba bis bi bisu euh, ngërëm la bisu xéewal la bisuk tawfiq la ndax kat garage bobu rango moy garage bi gën ci garage yi yoonu lislaam moy abdal jam ab mbiru garaatu jaam kon bok ñi nga xamni bisba ni lay mëna a ñi nga xamni ne ñoo bokk ci aajo ci daayira bi bu ne suba la na fa fekk ñëpp ñu ànd ci liggéey bi tax ko nek ben ba nun ko bëgg ñu ànd ko defe ko ni am am ci ngërëmal sëriñ bi alaykum wa rahmatullahi taala barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, ginnaaw bu ñu sant yàlla suñu borom julli ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi fii ci kër sëriñ Bassirou Sarr jaamu sëriñ Touba euh, ñu fi fas yéene jottali kàddu yi woote woote boo xamante ne si sëñ Jili moo ko daan defal sëriñ <coughs> Bassirou Sarr jaamu sëriñ Touba at mu jot jëmee ko ci ak cant goo xamante ne si da koy motti lu kóllëre sëriñ Bassirou Sarr digganteem ak sëriñ Touba. mu melne euh danañ ko def fukki fan ak ñent ci wéru mars euh, mu koy defee ci ndigal Serigne muntaha Mbacké ak ndigal Serigne Sidi sar bi nga xam moy khalifa cheikh ibrahim sar euh sëñ jëri nak nee mi ngi wo mbooleem ñi nga xamanteni ci ne la bokal Cheikh Ibrahim sar di wo mbooleem ñi nga xam ne la bokal Cheikh Ibrahim Fall di wo mbooleem li aju ci kër Serigne Touba li ko tàmbalee ci kër Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ba ci kër Cheikh Mamadou Mourtada di ko dale ci kër soxna Fat Ja Mbacke ba ci soxna May Suxra sëriñ bi nee na mi ngi leen di woo ñoom ñëpp bàyyul kenn am na ay kilifa yoo xamante ne si ne moo ak ñoom ñoo bokk dëkk fii ci Thiès ku mel ne sëriñ Takko Mbacke moom sëriñ Mourtada di wala réew sëriñ Jili di kenn ci moom sëriñ Jili nee na mi ngi koy woo di ko fàttali bis bu baax a baax mu ngi woo sëriñ Assane Fall moom sëriñ euh, euh, moom sëriñ Cheikh Fall Baye Góor sëriñ Jil nee na mi ngi koy fàttali bis bu baax a baax a baax mi ngi koy fàttali sëriñ Gunna Fall ak sëriñ Mbacke Fall ak euh, sëriñ ak soxna Seyni bu Njëgeen di jigéenu sëriñ Jil di kenn ci moom di ab xaritam di wëllëreem sëriñ bi nee bàyyiwul kenn mbooleem koo xamante ne si ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah nee na mi ngi lay woo. nga ñëw teew ci bis bi nga xam ne bisub cant la bisub ñaan la ñu ngi ñaan nag ci kàttanu yàlla suñu borom yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm lépp loo xam ne ñaan nañ ko fiit yàlla na ko yàlla nangu liñ ci ñaanal ci nga xam ne mooy way dawlu it yàlla na yàlla suñu borom nangu loolu te fekk leen fa nekk ñi fi nekk di leen ñaanal yàlla bàyyi leen fi ñu sax fi yàgg fi loolu ba gën man defal ba leen gën di leen mën a defal loolu daraje sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah waa asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax nag euh, dañoo jub xew-xew boo xam ne nii le 14 mars la ci fii ci Thiès Touba Thiès kër sëñ Basirou Sarr bala ñuy ubbi nag ñu jiital ci nuyoo bi soxna Jee Fall bintu sëriñ Modou Moustapha Fall euh, ñuy ñaanal aussi soxna Baali Mbàkke yàlla na yàlla yokk leeram ndax nag bis bii dañ ko daan ànd ak moom mu nekkoon kóllëre sëriñ Basirou saar mi nga xam ne nii moom moom bis bi soxna maam say saar nag mooy woote ci bis bi di woote mboolem jigéen ju mu bokkal kër sëriñ Touba ak kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak kër Cheikh Serigne saar ak kër Serigne Abdou Mbacke Rudis ñi ngi jiital ci woote bi soxna Baali Muntaxa suñu mag suñu kilifa suñu wasila di ci teg soxna astu Mbacke mu soxna Baali Mbacke ñi ngi koy soxna maam say saar mi ngi koy woo ci bis bi di ci woo soxna Astu Baali Mbacke. di ci woo soxna Momi Kebe di ci woo soxna maam Faati Mbacke mu sëriñ Sidi Mbacke Cheikh Abdou Lahad di ci woo soxna Ami Galas di ci woo sëriñ Ablaye Tage borom këru soxna Momi boobu Kebe boobu di ci woo soxna sëy na bu njegeen mi nga xam ne nii moom jëru woo sax ndax nag dañoo bokk bis bi ñoo koy ñoo koy ànd première édition ba édition bii kon ñi ngi ko ciy woo di ko fàttali rek lay doon di woo association de petites filles de Cheikhul Khadim ki nga jiitu di soxna Dadi Mbacke ñi ngi leen ciy woo di woo surtout maam Cheikh Ibrahima faal yëpp ci di woo waa groupe baax maam di woo tamit daayira maam jaara bu so yi nekk Thiès yëpp di woo tamit képp koo xam ne nii jigéenu ràbb nga ñi ngi la ciy woo du ñu leen woo sax ndax ñoom bis bi seen bis la képp ku ci ñëw rek ñoom la ciy jàppale ñoom la ciy euh, teg loxo waaye ñoom ñoo moom seen bis kon kuy woote rek ñoom ngay wooteel ñi ngi leen di woo ci seen bis bi di ci jiital tamit ci woote waa kër Serigne Bassirou saar ki nga xam ne nii moo jiite jigéen ñi muy soxna maam Diarra saar ñi ngi ke ko ci woo di ci woote ñëpp ñi nga xam ne nii ñooy jigéen ñi mu bokkal waa kër Serigne Bassirou saar jaamu Serigne Touba. di woo tamit euh, soxna waa kër Serigne Abdou Mbacke Ridis soxna Momi Mbacke soxna baal Mbacke nekk ca bopp ba moom tamit ñi ngi ko ciy woo. di ci woo képp koo xam ne nii rek jigéen nga nekk jàmbaari lislaam nekk jàmbaari cheikhul xadim ñi ngi lay woo ci bis bii soxna maam say saar nag nee na mi ngi leen ciy woo yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen la bokkal ndax nag amul lu dul cheikhul xadim amul lu dul waajuram cheikh Basirou saar kon nag màgg kii cant gii nga xam ne moom la ciy cant bëgg na cee gis képp koo xam ne nii wóllëreem nga soppeem nga ameem nga mi ngi la ciy woo di ci woo soxna ami Mbacke mu mu sëriñ Sidi Mbacke Abdoulahat di ci woo tamit madame Ngenaar seen conseillère technique au conseil ñi ngi koy woo ci bis bi di ci woo képp koo xam ne da ngay wax ashadu an laa ilaha illallah ah may woo nag sama ministre madame day tikkee Ndiaye ministre des télécommunications et de l'économie numérique moom nga xam ne moom lañ bokkal Thiès muy sama yaay di sama xarit di sama soppe di ci woo Adja Marème Diop Sila damay bañ a lim nag ndax ku lim juum doo juum waaye da dul matale maa ngi woo jigéen ñi nga xam ne ñoom laa bokkal Thiès bokk ak ñoom famille politique bokk ak ñoom ci ci ci ci naqar bokk ak ñoom bànneex ma leen di woo bis bi nga xam ne sëriñ Jili saar da ciy santale sëriñ Touba baayam ba sëriñ Basirou saar waaw soxna maam say saar nee na mi ngi woo mbokk jigéen ñi bokk ci daayira jamaatul àq yëpp soxna Bintu Mbuub nekk ci bopp ba di woo tamit soxna Ami Mbacke mu sëriñ Mbacke soxna loo ci Touba maa ngi woo ñëpp. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw ba di ci teg suñu la Cheikh basirou sar jam Serigne Touba ñi waajal bis bu mag bis bu tedd bis bu am euh, tarikh ci suñu kër gi di kër Serigne basirou sar jam Serigne Touba ginnaw lolu nak ñuy wéye ay kàddu ndigal bis bi nek le 14 mars 2020 ci Touba Thiès ñu ci wo mbokki talibé yépp nonu nak lañuy ñëkke ci bi ki nga xamanteni mo yor kaddu Serigne Touba di Serigne basirou mbake mom Serigne Abdou Khader mbake ñu ngi koy wo ci bis bi di wo Serigne Modou Mahfouz mbake mom soxna euh, Maymuna bintu khadim Rasul di wo Serigne Abdou Lahat mbake gayne Fatma di wo Serigne Mbake Mbacke euh, gayne Fatma euh, di ci wo it njabootu Serigne abdou Ahad Mbake gip ci njital Serigne Sidi Mbacke ndax waker sering Serigne abdullah Mbacke kat danoo am nu demee ak Serigne basirou sar mi nga xamanteni mom moñu fi taxatok tay sering kon ñi ngi ci wo ñep ci njabot ci euh Serigne Djili sar di wo wa keur Serigne fallu di ci jital Serigne Abo Mbacke mi nga xamanteni moy khalifa di wo Serigne Modou Xabbaan Mbacke di wo Serigne Abdou Mbacke falilu Serigne Abibou Mbacke falilu di woo Serigne na Mbacke rue ak njabootu Serigne Abdou Mbacke gépp euh, bu rue 10 kon ñi ngi woo ñooñu ñëpp ci bis bi leneen li ci des mi ñi nga xamante ni ñoo nekk ay autorité administrative te nekk fii ci biir dëkk bi ku ci mel ni monsieur le gouverneur de la réseau de Thiès ñi ngi koy woo ci bis bi monsieur Moustapha Ndaw di woo monsieur le préfet du département de la réseau de Thiès Euh, monsieur Moussa Diagne ak le préfet sortant mi nga xamanteni mom dafa bok ci yef yi muy monsieur Fodé Fall di monsieur le maire tala Sylla de la région de Thiès di wo monsieur le délégué régional de la Sénélec Pape Moussa Diam di ci wo tamit monsieur Cheikh Sar commandant de la légion euh, centre ouest de la gendarmerie di ci wo tamit monsieur le commandant de des sapeurs pompiers ñi ngi ci woo tamit mbooleem kilifa diine boo xamante ni mi ngi ci biir Thiès ñu ngi koy woo ci bis bi di ci woo Serigne Salihu Touré mi nga xam ne mu ngi ci biir Thiès di ci woo it Serigne Takko Mbacke mi nga xamante ni moom it bis bi bisam la euh, nekk wóllëre Serigne bi bu baax a baax ñu ngi ko ci woo tamit ci bis bi di woo mbooleem daayira ak képp koo xamante ni yaa ngi ci yoonu murit wala nga nekk ci beneen tarixa ak fu mu mën a nekk ñu ngi lay woo ci bis bi di woo daayira yi nga xamante ni noo nekk biir Thiès suñ ci tuddee Majmahun Noreyni fi faawa di daarayni bi nga xam ne Serigne Khadim moo ko jiite daanaka mën nañoo jotaleel suñu woote ci mbokk taalibe yi nga xam ne ñëpp ci xasida la ñuy yëngu ci biir cees waaw ñi ngi yemale foofu kàddu gi tey wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ñaan lii nga xam ne moom la ñu dëggumal dëgmal yàlla na suñu borom defal ndam di ñaan Serigne Bassirou Sarr jaamu sëriñ Touba suñu borom yokk leeram fa barsaq Muhammadiya wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyoo bu baax di sant jaamu sëriñ Touba suñu waajur wi sëriñ Ji Sarr ak soxna Mante Sarr ñu ngi wax ci seen kàddu. ci kàddu sunu waajur soxna Jee Faal kàddoom la ñuy waxee ñu ngi woote cant gi le 14 mars 2020 fii ci Touba Thiès ñu ngi woo waa Kawsara Fall ñëpp ndëkk di ko jiital sëriñ Moussa Fall ak sëñ Fallou Fall ak soxna As Fall di woo waa Kër Seex di ko jiital sëriñ Assane Fall Baye Góor di woo waa Madina Fall yëpp di woo waa kër sëñ Bayloo di woo waa kër Cheikh waa daa baay bàyyi wuñu kenn di woo waa taax kaw di woo mboolem ku nu bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ jii di ne ñu ngi lay woo ci bis bi ak soxna maam say Sarr ne mi ngi ci woo soxna Marème Mbuub jëwriñam mi ngi koy woo ci bis bi moom itam di ñaan yàlla mu ñëw ci sant gi sant la ko Cheikh Bassirou Sarr jaamu sëriñ Touba ñu ngi ñu ngi woo waa kër Alaaji Modou gépp di woo sëriñ Moussa Ka ak sëñ Maam Mor Ka ak mboolem ku nu bokkal rom di woo sëriñ Moustapha Ka mooy sëñ Tayba moom it ñu ngi koy woo ci bis bi ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di woo ñi ngi woo mboolem ku ñu bokkal Serigne Touba ak maam Cheikh Ibra bàyyiwuñu kenn ñi ngi woo kees gépp ci bisub cant gi Serigne Jiiri Sarr ak soxna maam saar Sarr defal suñu waajur wi Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba ñu ngi leen di woo ci bis bi di ñaan yàlla nag ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ah kon mbokk julli ji ñoo ko déggandoo kàddu yooyu nga xamante ni moo rot fii tey kon noonu lay defee di woo kenn ci sëriñ bi nag muy sëriñ Seexuna Mbàkke moo laa jabdu Mbàkke riidis noonu lay def waaye di woo jàmbaar yi lislaam ji sëriñ Basiru Mbàkke Abdu Xaadir di bàyyi ci sëriñ bi di xaritam waaye nag fàttewunu ki nga xamante ni mooy monsieur Sirédia PCA di LONASE waaye nag noonu lay def di woo monsieur le maire Talla Sylla doon xaritu sëriñ bi waaye noonu laay rogalaatee jëm fii nga xamante ni nag foo ko ni ah monsieur Amadou Amadou Djibi doon nit koo xamante ni kenn la ci dëkk bi waaye noonu laay woo monsieur Habib Kane directeur réseau d'appui pour le développement waaye noonu laay doog di doo kii nga xamante ni mooy soxna Seynabou Ndiégène mu maam Alaaji Ahmad Baro soxna Seynabou nag daa def ak ndegeeneem tuuti jigéen la joo xamante ni lépp sëriñ bi da koy ànd ak moom muy guddi muy bëccëg muy taw muy naaj day ànd ak sëriñ bi te lii nag du caagi nu bis moo tax ñu ko sëriñ bi waaye noonu lañu woo mbooleem képp képp ku naan asadu muhammad rasulullah bàyyi ñu waa njaañ saar ndax sëwru mat jabel joob mi ci guy taxa maam maalik mi ci barke bi boo ko déggee loola ko waral kon noonu lay dox jige woo ki nga xamante ni mooy monsieur Pape directeur Thiès Prestige waaye noonu lay woo na Ablaye nag ba mu ñëwee ci dëkk bi dafa ànd ak sëriñ bi ànd bu rafet waaye nag noonu laay wooye monsieur Pape Djibi Sy directeur du impôts et domaines waaye bàyyuma ki nga xamante ni kenn la ci dëkk bi muy Baye Sëriñ Samb Baye Sëriñ ñi lay woo ci bis yow bis bi waaye noonu xamante ni nag mooy ki maître Pape Amadou Samb mi nga xamante ni kooku damaa bëgg te yàlla tax Pape Amadou bis boobu sa bis la allah rabbi waaye di woo monsieur Maodo Malick Mbaye di woo monsieur Sidi Diakhaté mi nga xamante ni promoteur de la jeunesse waaye nag di beral cant soxna Jee Fall moom Cheikh Modou Moussa Fall mi nga xamante ni nee na mi ngi woo mbooleem képp ku naan ashhadu an laa ilaaha rawatina kër Cheikh Ibrahima Fall nee na kenn kon bis baa ngoog bis baa ngi noonu bisub sant la bisum ñaan la bisum mbégte la kan moo koy doxal ñu Serigne Djili Sarr moom Serigne Bissar jaamu Serigne Touba la 14 mars fa la yemee Touba Thiès kon bis baa ngi noonu képp ko naan ashhadu an laa ilaaha illallaah bis bu sa bis sa